fi jëlee. boo amee ak taalibe. boo amee ak taalibe. da da nga ci am. da nga ci am. boo amul taalibe. boo amul taalibe. boo dul taalibe. boo dul taalibe. duñ seq dara. duñ seq dara. doo am ci man ci man dara. doo am ci man dara. sëñ Fallou dina ko. sëñ Fallou ne ko. man dey. man dey. sama jureel gi nga ma jur. sama jureel gi nga ma jur. jaay naa ko. jaay naa ko. jëndee ko ak taalibe. jëndee ko ak taalibe. la ñu ma ciy fay. li ma ciy fay. def naa ko addee. def naa ko addee. noonu la noonu la meloon moom. nee noonu la meloon moom. ba fii mu nekk. ba fii mu nekk. sëñ Fallou. sëñ Fallou. taalib sëñ Touba taalib sëñ Touba la. koo ko mën a wax. koo ko mën a wax. bi naan ab taalibe la. danaan la ab taalibe la. am nag taalibe. am na ñu ne waaw. ñu ne waaw. mu ne kon da baax na. ñu ne kon da baax na. sëñ Fallou. sëñ Fallou. moo ma feral man mii wax. nee moom mii di wax ak yéen moo ko wàcce moo ko feral. waaye. nee waaye. am naa ci. lu lu lu doy waar. nee na am na ci lu doy waar. Serigne Baara ma jur nag. Serigne Baara Fallilu Serigne Baara Mbacke moo ko jur nag. Serigne Baara Aminata Lo. Serigne Baara Aminata Lo Moustapha Aminata Lo mooy waajuram. mooy sama waajur. nee na mooy waajuram. bi ko Serigne lu ferelee. nee na bi ko Serigne Fallou ferelee. am naa fukki at ak ñaar. nee na am na fukki at ak ñaar. door a wax door a wax. bi nga xamee ni maa ngi dem ñu ngi yóbbu ci daara ja. nee na bi nga xamee ni moom mii ñu ngi koy jël di ko yóbbu ci daara ja. ma am juróom-ñetti at. nee na mu am sama ndey indi ma ci sëriñ Fallou nee na waajuram wu jigéen indi ko ci sëriñ Fallou na ko sa waaji de day bëgg a dem ca na ko ah sa waaji day bëgg dem ca daara ja waaye mun ta wax waaye mun ta ba tey mu ne ko ah ta wax ba tey nee na mu ne ko mun ta ba tey ko déedéet mu ne ko déedéet daal sama nopp bi nee na mu téye noppam na ko xaara sa ngi ñëw léegi nee na mu ne ko xaara sa ngi ñëw léegi na tuuti sëñ sëñ ñëw sëñ baara ñëw daal di nuyu daal ne sama de eh da ngaa indi na mu ne waajuram wu jigéen da indi woon Basiram ci sëñ Fallou mu a ko waaw mu a ko waaw mu ko loolu da baax na yëpp gërëm daara ji war naa tàggoo mu ne ko loolu da baax na borom daara ji de war naa ñëw te bëgg a dem ci daara ja te bëgg a dem ci daara ji kon war naa tàggoo si kon war naa tàggoo si fekk na ay ministres ngi fi di ko laaj laajal sëñ Fallu baraak nee na foofu am na ñu fa nekk di daajal sëriñ Fallu baraak ñu génn bant yi ñu génn bant yi ak pont yi ak pont yi sëñ Baana ne eh, ñii lu ñuy def sëñ Baana ne eh, ñii lu ñuy def mu ne ko dañ ma defal barab bu ma jàngee nee na mu ne leen dañ ma ne defal barab bu ma jàngee mu ne nañ ko bàyyi ma def ko mu ne nan ko bàyyi ma def ko sëñ Fallou taf gémmiñ ga sëñ Fallou taf gémmiñ bi ne ko déedéet bu ko def ne ko déedéet bu ko def mukk mu ne ko danaa ko def mu ne ko danaa ko def dama koy barkeeloo dama koy barkeeloo daal di génn kees à outils daana génn kees à outils yi def marto yeeg tañaat yeeg weñ yeeg yooyu ak maître am ak maître am di di mètre. nee na ñuy mètre. di dagg. di dagg. di daaj. di daaj ba baraag bi ba place bi taxaw ba mu tëj tëj ko. ba mu tëjal ko boppam. tijji ko tijji ko. jox sëñ Fallou caabi yi. jox sëñ Fallou caabi yi. sëñ Fallou bég lool. ne ko xam ne bég naa lool. bég lool sëñ Fallou bég lool. mu ne ko nag Basiru mii daa mënta wax. mu ne ko Basiru daa mënta wax. sëñ Fallou wax ko ne ko ndeyam nee mënta wax. sëñ Fallou wax ko ko ne ko ndeyam nee ne daa mënta wax. mu ne ko ah, dana wax de. mu ne ko ah dana wax de. dana wax dana mu ne ko dana wax dana bari solo. sëriñ Fall daal di génne guro ci gémmiñam sëriñ Fall daal di génne guro bu mu doon yooyu ci gémmiñam def sama gémmiñam nee na daal koy def ci gémmiñam dama demal rek ne ko waa demal rek danga wax da nga wax da am njëriñ da am njëriñ ah maa ngi nii nag. nee ah, moom mi ngi nii nag yàlla na yàgg. tey ban yëg-yëg nga am xewle Cheikh Mouhamadul ñëw ànd ak ñi mu àndal sa xarit yëpp ñëw teew. waaw ah, Cheikh Amadou Lamine Bachir Baara sama waajur la kilifa dogal sama waajur la mu yàlla dogal mu nekk sama wasila déggoo mu wax la ne la nekkul làmb moo tax ma jébalu ci moom ma jébalu ci moom yàgg na ba bëree gu ma mënaguma dara ba ma ciy dugg dama ne ma ne li sa morom bëriwul la nga ko mës a bëre da nga mës a fekk cent mës a nekk roi des arènes loolu duggaguma ci làmb yàlla xam na loolu kon. caaxaanee ma ko sax yàlla xam na waaw te di sama waajur ba pare ma doog koo jox sama bopp waaw àdduna noonu la ku am gan kontaan rawatina say mbokk ñëpp teew